di dellu di leen di nuyu ñu ngi leen di ziar di leen dalal jàmm ci senego.com yéen a ngi ñuy suivre tamit ci suñu yeneen i euh, plateforme moo xam ci YouTube euh, Facebook euh, Twitter ak Instagram rawatina seen site officiel senego.com mën ngeen continuer di abonné ci suuf vidéo yi fi ñu bind s'abonné à temps réel fépp foo leen toll xibaar lu ñeel ci réew meeg bitim réew di ngeen ko jot ci nu mu gën a gaawee rawatina seen téléphone ak seen tablette mën ngeen télécharger par Play wala boog Apple Store ngeen am seen site internet. internet ci seen téléphone wala boog seen tablette muy euh, site boo xam ne moo jiitu ci wàll wàllu info euh, mobile en Afrique de l'Ouest fi ñuy tàmbalee fës net moom mooy ci seen site préféré senego.com wax ñu ci li nga xam ne moo wàll wàllu jamonoy coronavirus euh, te nguur dañu tere woon li nga xam moom mooy ay ndaje yu bëri muy mbooloo bu takku takku lépp dañ ko tere woon donte sax état d'urgence bi levé nañ ko waaye lépp rek matukaayu kaaraange yi ba tey la ñu tegoon jógu fa moo tax ba wax nañu ci tournée euh, njiitu réew mi Macky Sall mi nga xamante nii moo joxe woon ay ndigal ngir ñu euh, tere dajaloo yi waaye daa mel ni ki président la république moom mi lee Macky Sall tournée économique bi mu tàmbali le 19 septembre bi ñu génn foofu ca diwaanu Fatick dem Kaffrine ak Kaolack jamono yi ñu gis ne rek bi nga xamante ni si tournée bi gis nañu euh, leader APRS yi dañu mobiliser seen euh, militant ay lim bu takkoo takku takku ñu doon tertu seen njiit moom mi lee le président Macky Sall kon dafa mel ni ki daal ñoom faale wala bokk toppatootuñu li nga xam moom mooy tere yooyu muy les mesure barrières euh, tere bi nga xamante nii dafa aju woon euh, ci ñu euh, tere ndaje ndaje yu bëri ay nit di dajaloo muy mobilisation ak yeneen ak yeneen rassemblement kon ci jamonoy coronavirus bi njiitu réew mi tere woon li ni mel waaye daa mel ni daal ñi nga xamante ni ñoom ñoo faree ci APR loolu yëpp teg nañ ci seen tànk di tertu président de la république ci mbootaay bu takko takku yéen a gis image yooyu ci senego point com ci coronavirus boobu la ñuy desandi ak li nga xam moom mooy wàllante yi amoon nañu tiitaange ci yenn ci ay école waaye euh, dañu gis ne rek presse Afrique nee nañu benn école euh, bu bilingue bu nekk fii ci biir réew mi euh, dafa mel ni ki am na benn xale boo xamante ni moom dañ ko teste mu positif am coronavirus xale boobu sax. mi nga doon jàlle jànge euh, ci euh, classe bi nga xam tolluwaay bi moom la ñuy tuddee euh, grande section muy mbir moo xam direction école boobu noonu ëlëm na leen te jaaxal na leen moo tax ba rek wax nañu yenn parents d'élèves yi maanaam waaye juru élèves yi nañu téye seen doom ca seen i kër tey ci altine yemook ñaar fukki fan ak benn te cours yi dina commencé waat semaine bii ñuy dëgmal euh, fii ak daal ñuy xool xale boobu nga xam dafa amee woon jàngoro bi ñuy xool euh, biir école bi ana nan la ñuy doxalee fii ba altine bi ñuy euh, dëgmalaata kon mi ngi noonu am na benn xale bu am coronavirus kon boog jommul kenn ñu dem ci leeral point net leeral point net wax ci ki nga xam ni moom mooy njiitu réew mi Macky Sall ak li ñuy laam-laamee ku ko wax ci biir parti APR ñu dàq la wala boog ci coalition bi waaye ñu ngi koy laam-laamee muy troisième mandat wu njiitu réew dana ko defam déet waaye kenn koo xam dafa bokk ci APR muy président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar muy coalition bi nga xam ñoom ñoo nekk euh, au pouvoir ñoom ñu nekk assemblée nationale ay meeru ñi nga nekk seen njiit moom li mu jàpp nee na buñ ko tegee ci wàllu yoon kii di président Macky mën na def troisième mandat moom ay ñi Gningue moo wax de suñu député boobu nga xam ne dañ ko fal nee na deux mille vingt quatre moom président ci li nga xamante moom mooy juridiquement ci wàllu yoon moom li mu xool ak li mu gis nee na président mën na def troisième mandat Aymérou Gningue moo ko wax ci leeral point askan mi nag ñooy jugé euh, ñu dem ci euh, sans limite sans limite dikk na ci li nga xamante ni moom moo soxal Lamine Diack ak baayam di Massata Diack gannaaw bi nga xam teg nañ leen ay daan foofu ci réewu France muy wàllub guerre ci daw ñoqali muy euh, athlétisme IAAF euh, ak li ñu leen di tuumaal mu mel ni ki yeneen i tuuma ñëw na teguwaat ci bàyyi jeeg doom ji gannaaw condamnation bi nga xamante ni justice France moo leen ko teg euh, muy quatre ans moom bàyyi ji Massata Massata doom ji moom Lamine Diack ak doom ji moom mi lee Massata Diack di doom ji ak papa ji Lamine Diack ñoom ñaar ñëpp ñu teg leen ay daal génne nañu waat beneen i gëstu boo xamante nii tuumaal na leen takkalaat na leen muy enquête mondiale bi nga xam ni moo soxal ci wàllub euh, consortium international des journalistes d'investigation ICIG moom Lamine Diack dañ ko tuumaal ci 112 opérations bancaires maanaam téeméer ak fukk ak ñaar ci ay opération ci ay banque la ñu gis ne maanaam ay yëngu-yëngu ci xaalis yoo xam dañ koy euh, dugal ci ay banque ñu suspecté maanaam daal ñu ñaaw njort lu toll si cinquante cinq virgule sept millions de dollars bu ñu ko xaymaa ci CFA muy trente milliards de euh, francs CFA enquête boobu nga xamante ni ci wàll wàllu banque nee nañu li nga xam ne moom mooy euh, trans trans fi ñuy transité xaalis bi nga xam ni jaar na fa ñoom waa Citibank dañ ko gëmm dëgg ci seen tànk ci atum 2015 Pape Massata Diack def na benn réservation pour papam ca hôtel California bu Paris lu toll si trente mille dollars euh, loolu daal muy xaalis boo xamante ni euh, mu ngi nekkoon euh, ca compte bi nga xam ne moom mooy Citibank muy virement bi nga xamante ni dafa bokk ci dans cent douze paiements yi nga xam dañ jàpp ne xel. Euh, ñaaw na ci transaction xaalis boobu noonu kon lu ni mel muy enquête bi dafa génn gannaaw bi nga xamante ni ñu ngi def ay gëstu ci luubal yi ñu toppee moom kii di Lamine Diack ak doom ji Papa Massata Diack à suivre bu ñu fa jógee dem nañ senego.com comme dikkaat na ci wàllu xaalis bi nga xamante nii muy xaalis bu setul blanchiment euh, d'argent ak i tamit euh, xaalis bu setul muy ay faux bu ñu tuumaaloon ki nekkoon député APR gi di Seydina Fall alias Bougazeli turandoo Seydina bi nekk fii ci biir kër gi di sama technicien ak gannaaw xibaar bi nga xam ne dañ ko jëlee ca Les Échos nee ñu am na ñaar ñoo xamante nii ci enquête bi ñu ngi leen di topp dañu gis ne woon ñoom ñaar am na lu ñu sekkoon nag kii di Seydina Fall alias Bougazeli turandoo Seydina bi nekk fii ci Sénégal tuddee wuñ ko ko nag man maa ko tuddee kon ñaar ñooñu fi mu nekk nii police teg na leen choc ñu ngi leen di wër loolu sax moo xaw a tardeel li nga xam ni moom mooy enquête bi pour mu am yeneen évolution fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi ñu génn lañ tegoon loxo euh, moom euh, Bougazeli euh, fi nga xam moom mooy station service bi nekk foofu ca Ngor kon fukki fan ci weeru juin mu am liberté provisoire bu ñu fa noppee dem nañu sénégal Sénégalactu point sénégal Sénégalactu point comme moom wax nañu loo xam ne lu yéeme la loo xam lu daw yaram la nee nañu benn doomu sénégalais boo xamante ni borom ñaari tur yi la ah, bu dëkkoon foofu ca di M Wade ñu nëbb tur bi moom ci àjjuma ji lañ ko fekk ci biir appartement ñu jamati ko paaka ci dënn bi ak ci but bi put bi mel ni ku koy rendi euh, noonu la ñàkkee bakkanam deret yu bari bari doon wal ci kaw lal bi ba ci biir néeg bi nee nañu M Wade moom noon di doomu sénégalais borom ñaari tur ya moom moo nekk foofu ca Belgique moom sax si wàllu yoon lay yëngu huissier la foofu ca province de liege nekk ca réewu Belgique faram di doomu belge muy euh, Pascal Rodens moom moo doon faram ñoom ñaar daal euh, ñoo doon sëy ñoom ñaar sénégalais boobu noonu nga xamante ni dañu ko faat foofu ci réew Belgique mu nekk loo xam ne lu doy waar la enquête bu yaatu ubbi nañ ko ci gannaaw bi ñu gisee lu ni mel moom sax faram bii di doomu belge bi bi mu ñëwee ci biir néeg bi moom moo njëkk a gis ne moom corom soosu di doomu sénégalais góor borom ñaari tur ñàkk na bakkanam euh, bu ñu fa noppee. seneweb point com wax ñu waat loo xam ni kaw kawteef lu kémtaane ca mbaaw la xewee benn directeur école internat moo doon tëdd ak benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom waaw fukki at ak juróom directeur boobu ñu sant ko ngir muy téye xale bi ci biir kër gi ñu koy surveiller muy jàng bëgg ko teg war ko teg ci yoon mais moom daal la mu nekkee woon ci xale fukk fukki at ak juróom boobu mooy daal chaque jour rek mi ngi yéeg ci kawam euh, kon moom dañ ko defeere sax foofu ca parquet bu réew France vendredi bi ñu génn euh, ñu tuumaal ko di détournement de mineur euh, kon ci enquête bi dañu gis ne moom soxna si FT bi nga xam ne moo dëkk foofu ca Paris moom dafa demoon ca brigade euh, section protection des mineurs judiciaire bu nekk ca France doon ñaaw li ni mel porte plainte moom daal dañu ne moom doomam bu jigéen bi directeur internat bi daf ko dañu gis ci téléphone xale bu jigéen bi ay vidéo yoo xamante ni vidéo ñoo xamant ñuy sëy lañ ko doon la ko directeur bi doon envoyé te yenn saa yi dafa doon woo xale bi euh, ci biir néegam naan na ko maase na ko bës na ko dàmpal yaram bi nekke moom directeur bi dàmp xale bi rek la fa nekkee <laughs> moo taxit teg nañ ko loxo internat jàngalal xale bi nga koy dàmp di wut ku la dàmplu yow it ndàmpalu daal moom la doon def diggante moom wax xale bu jigéen boobu am fukki at ak juróom bu ñu fa noppee senego point comme la ñuy jeexalee euh, kon xibaar boo xamante ni dana neex gannaaw juróom benn weer yoo xamante ni ñoom artistes yi tëggkat yeeg fecckat yi am na ñoo xam ne sax def nañ ci marche ne nañ leen bàyyi ñu tëgg nañ leen fa bàyyi ñu ndaga nañ leen bàyyi ñu béggee ndax coronavirus bi ak état d'urgence sanitaire bi amoon moo tax ba ay xibaar yi euh, Sénégal am nee nañu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dina joxe ndigal fii du yàgg dara lépp daal di dagan ñu tijji boîte yi gars yi commencé fecc gars yi commencé bége naa bi nga xamante ni temps yi dafa nekk ci course gi ndax ndox mi bi mu duggee ci këram ba tey si jaamu yàlla nekk moom mi tam moon dem boîte léegi bana ko Ablaye moo jël relève bi ngay taal motoom jubali ba almadi jet kafeek yeneen ak yeneen di bége. moom ak yaa Moussa léegi nag yaa Moussa nee na yàkkamti na loolu dem bége ji ah Seydina nee na tamit yàkkamti na ko Ablaye nee na yàkkamti na ko kon jëwriñ bi Aly Ngouille Ndiaye woykat yi yéen léegi ngeen commencé waat seen liggéey bois de nuit yi tijji bége yi commencé kon fii jëmmi jamono rek lépp dana daal di dagan incha allahu rabbi coronavirus moo ñu ko tegoon kon mbokk yi foofu la ñuy daal di tàggatoo eh, ci Feus Net jaajëf xalel bi nekkoon ci minn bi jaajëf Seydina Ablaye borom almadi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Seydina suñu sëriñ bi yaa Moussa nee na moom nangam nangam la loolu ñeme ma ngaa tudd en direct yaa <laughs> ngeen jëf ñi yendoog jàmm yàlla ñu yàlla musal ci cat musiba ak balaa làmmin ak lépp ci lu bon ñu takk jóg waajal màggalu sëriñ Touba yaa ngeen jëf